alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaciin amma baad mbokki jullit yi noo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem gannaaw loolu ñu xam ne mbooleem borom métier yi kenn ku ne sa métier am nga ca responsabilité bu rëy waaye buñ ko dee seet bokk na ci ñi gën a rëy responsabilité ci seen métier métieram faj li ñu tuddee docteur buy faj métieram ci métier yi gën a rëy responsabilité ci la bokk li ko waral mooy aajo woo goo xam ne nit ñi aajowoo nañ ko moo tax lu baree bari ci ay masala ci lislaam diine lislaam daf koy teg ci rapport boo xam ne docteur a koy joxe mu door a joxe atteem loola nag day wone responsabilité bu rëy moo xam loola dafa doon ay mbir yu aju ci feebar buy gaar nit fan la feebar bi toll ak ban façon la ak ndax feebar boobu mën naa dem ba indil ko yenn ngànt yoo xam ne mën naa tax du def jaamu yàlla yi am yeneen i yombal yoo xam ne sharia ko koy teg yooyu yépp docteur mooy joxe rapport am ñu door a xam loolu léeg-léeg sax rapport bi ñu koy laaj day aju ci ay mbir yoo xam ne werante ak xuloo moo koy indi ba dem ci attewukaayu lislaam ñu delloo leen ci docteur ngir mu jox leen joxe rapport am lislaam door a mën a atte kon kooku ñépp war a ragal yàlla waaye bokk na ci ñi gën a war a ragal yàlla ci seen ci seen liggéey lislaam nag dafa bokk ci méthode am ak tëriinam bi nga xam ne moom lay doxe moo di li ëpp ci mbir yi li ëpp ci mbir yi ak i atteem ak i doxaliinam da koy teg ci anam goo xam ne ñépp ca mën a jot kenn ku ne ko mën a xalaatal sa bopp walla àtte ba kenn ku ne ko mën a gisal sa bopp lu mel ne waxtuy julli fi mu ko teg moo di ci jant bi lañ koy xamee jant bu toll ci diggu bëccëg aajo woowul spécialiste ngir mu door a xam ne jant maa ngi ci diggu bëccëg bu xoolee gis jant bi tiim ko ci boppam mu xool jis ne moom amatul ker amatul keppaar keppaaram yem na ci yaramam képp mu xam ne waxtu tisbaar jot na nekke noonu saa bu jant bi jengee ba mu xam ne keppaaram tàmbali na di tollook moom mu xam ne takk tàkkusaan jot na kon yu mel noonu sharia da koo teg ci mbir yu leer naññ nga xam ne kenn ku ne mënoon nga koo xamal sa bopp buñ la waxee ni mu demee aaji woowut ay machine aaji woowut ay calcule aaji woowut loo xam ne da ngay dellu ci kenn boo xoolee rek gis ko lu mel ne weer séentu ko ak xool ko itam fi ko teg mooy ñépp a ko man ku yor bët yu leer ku nekk boo xoolee bu weer wi feeñee bu fekkee ay niir amul da nga ko gis boo ko gisul nga mat li ba mat weer loolu kenn ku nekk man ajowut spécialiste ajowut lenn ma ne charia li ëpp ci ay atteem ci anam gu mel noonu la ko teg mu doon loo xam ne ñépp a ca mën a joti waaye nag bu dee lu aju ci wér-gu-yaramu doomu aadama nag ak la ca ne ci ay sew-sew ak i xóot-xóot loolu moo tax ñu delloo ko koo xam ne spécialiste la nag muy doktoor kon ñu xam ne masala boobu gën naa xóot masala yu baree baree bari ci sharia bokk na ci ngir joxe ay misaal ci bunt yi nga xam ne fiq jox na fa considération maanaam ittewoo na fa mbirum fajkat bunt yi may bëgg a tudd lu mel ne laab ci julli kenn ku ne xam na ne jullit bi balaa julli dafa war a jàpp wala bu dee sangu moo ko war dafa war a sangu léeg-léeg mën naa dem ba ngànt dab ko loo xam ne dana tax moom mii day jóge ci laab gi doonoon ci moom farata muy jëfandikoo ndox jël geneenug laab goo xam ne mooy wutu googu muy tiim ka mën nattale ba xam ne kii bu laalee ndox mi loru te lor ji ko ciy lor mën naa koo indil feebar bu metti wala mu faagaagal bakkanam kooku mooy docteur fajkat bi moo mën a xam loolu ndax moo xam xeeti feebar yi nga xam ne buñ la gaaree ndox bu laalee sa yaram nga mën a arrêté sa njàpp mi nga doon jàpp dem tiimi wala cangaay li nga doon sangu dem tiim dem tiimi ba tey kon loolu docteur bu ragal yàlla te xam moo mën a cité feebar bi la dal ne la kii romantisme la wala nangam la wala nangam la ne la boobu feebar bu la ndox gaaree nii la lay indil ak lii nga door a mën a dellu ci atteb sharia boobu kon kooku faw mu ragal yàlla ci mbir yooyu léeg-léeg sax ngant la du tegu ci yaram wi yépp léeg-léeg yaram wi mucc waaye am ci benn béréb rek boo xam ne ab jam-jam dal na la ci wala yu mel noonu ñu takk ko docteur bi nattale ne la lii bu ci ndox laalee mën na laa indil lor sàngam su ko defee booy jàpp wala ngay sangu ba agsi ci béréb boobee da ngay masaa rek ci kaw waaye ndox ma du ca àgg kon loolu ko koy site wax la ne la lii lu mën a nekk la wala mënta nekk mooy koo xam ne xam-xamam dafa màcc ci wér-gu-yaramu doomu aadama ñaareel ba feebar bi nga xam ne mooy tax nit ki mën a dog kooram faye ko yeneeni fan muy su feebar bi demee ba jàll wala feebar bi nga xam ne dem nañ ba xam ne bii feebar bu dul wér la boroom koor waratu ko waaye rek dafay lele feebar yooyu ki ko mën a nattale bañ xam lii façon feebar buy wér la wala feebar buy taqoog doomu aadama ji ba faaw la kooku ki ko mën a cité ba tey moom it mooy koo xam ne xam-xamam dafa màcc ci wérug doomu aadama te mooy docteur bépp nag jalgati boo xam ne def na ko ci te tey ko kooku day delloo responsabilité bu rëy ci kawam ci kaw niñ ci kanam niñ koy waxee tuuti ci kanam bokk na ci yooyu it feebar bi ñuy tudde feebaru ndee léeg-léeg docteur bi mën naa gis feebaru nit ki xam ne kii feebaru dee la te liñ gën a jàpp mooy ak dundam soreetul léeg-léeg docteur turwe loolu mën koo wax borom wala mu mën koo wax ay mbokkam feebaru ndee dafa am atte yoo xam ne lislaam daf ko cee teg yoo xam ne yu dëgër la ci ki feebar feebar boo xam ne mi ngi bëgg a faatu lan la sañ a def ci alalam ak lan la ci sañut def ndax sañ naa maye ci alalam ndax sañ na cee joxe nu mu ko neexe ndax su fasee kenn ci soxna yim yor fase mi dana wér wala du wér su fekkee ne wóor na ko ne feebaru ndee la boo xam ne dee gi soreetut kum fase itam fase ga chariat islaamiya du ko accepté lu tax mooy dañuy wax ne kii daf koo bëgg a xañ ci lim bàyyi gannaaw ñi nar koo séddale dafa bëgg mu bañ cee am loolu moo tax mu fase ko su jëlee alal itam di ko may kenn koo xam ne yoonam nekkut ci loolu ba tey charia du ko nangu ndax day xam ne xëy na dafa mere ñi ko war a doon bëgg leen a xañ alalam moo tax muy pasar yi di maye su boobaa ku may dutu compte su ko defee kii feebar la boo xam ne àgg na foo xam ne lu mu defati ci alalam du compte lu mu defati ci séyam itam du compte kooku mooy docteur kon kooku responsabilité am foofu rëy na lool bépp jalgati boo xam ne def na ko foofu rek dana yàq loo xam ne lu waroon a defaru la te bu boobaa bàkkaar ba ci moom lay dellusiwaat ba tey feebar yi nga xam ne dafa aju ci wàllu sëy ci diggante ñaari woy dencante am na ci yoo xam ne am na fu muy àgg ñaari way dencante yi sharia dana leen may ñu tàggali ko ngir ne ku góor ki yor na feebar boo xam ne ku jigéen ki mënu koo wéyaale wala ku jigéen ki yor na feebar boo xam ne ku góor ki mënu koo wéyaale ndax feebar buy wàlle la wala feebar bu garaaw la boo xam ne mën naa faagaagal dundu kenn ci ñoom ñaar su boobaa sharia daf leen di wax nañu tàggoo ñoom ñaar ci jàmm su ko defee ne kay wax ne feebar bi àgg na foofu wala qualité bii la lor ji mën na koo indi ak mënu koo indi kooko ba tey mooy docteur kon ci diggante boobu faw mu doon koo xam ne ak ragal yàllaam foofu lu wér lay doon lu ko mooy mën na leen a jox rapport boo xam ne bu wérut la ëpp sëy mën na caa tase te fekk la muy wax du doon dëgg su ko defee kooku bàkkaar yépp ci kawam lay delsi delsiwaat bokk na ci responsabilité yu mag yi nga xam ne lislaam jox na ko docteur bi moo di su fekkee ne ci misaal jigéen feebar dal na ko boo xam ne góor gu ko jigéen ju ko mën a faj néewu fi wala toll na situation boo xam ne soxla nañ spécialiste ci nàngam ku ko mën a taxawu te kooku jigéen ne moom amu fa su boobaa la fa sës mooy góor su daloon góor itam te góor gu mel ne moom amu fa la fa sës bu boobaa mooy jigéen kon la muy firi moo di sharia nar na koo may bu dee ku góor ci mu xool ci jigéen ji loo xam ne sañu ko woon a xool dana gis ci moom moom sañu woon gis léeg-léeg mu àgg ci laal ci moom sax loo xam ne sañu ko woon a laal te kenn ku ne xam na ne laal moo gën a garaaw gis donte dafa àgg ci xool awra ci boppam wala laal ko sax su boobaa sharia daf ko koy may waaye nag bu boobaa it dafay soññee di wax ne lépp loo xam ne mën nañ koo faj wala mën nañ koo lijjanti wala ñu mën koo doxal te fekk mën na koo def te du ko gis wala mën na koo def te du ko laal su boobaa sharia danaan ko loolu na ko defee noona lu mu mën a faj lu ne te gis donte day jël ab sér muur ko ci ba noppi la muy def mu def ko ci biir bañ koo xool su boobaa sharia da koy wax defal noonu waaye nag su demee ba nga xam ne dara desu fa lu dul xool laal su boobaa sharia daf ko koy may foofu nag la responsabilité am di gën a yokkoo lool ragal yàlla am war a gën a feeñ lool mu wattandiku jalgati laal wala xool lenn loo xam ne sharia daf koo araamal ci moom te fekk la mu ciy jublu mooy bànneexu kanam kese wala mu jublu ca loo xam ne nii mu koy laale wóor na ko ne mënoon na koo faje neneen te du ko laal wala nii mu koy xoole mënoon na koo faje neneen te du ko xool maanaam bàyyi fa loola jàll ca la nga xam ne sharia mayu ko ko su boobaa responsabilité bu rëy a rëy moo cay tegu bokk na ci responsabilité yi ba tey jigéen léeg-léeg ci wér gi yaramam njur yu jege du baax ci moom mën naa faagaagal wér gi yaramam ndax mën na koo alag wala doom yeey juddu mën na leen a alag loolu léeg-léeg mu dal jigéen su fekkee ne dafa néew kàttan wala mu doon koo xam ne dafa bindoo wéredi waaye nag loolu du jigéen ñépp de mën naa am jigéen ñoo xam ne mën nañoo jur seen njur yu jege te du leen wàññi dara du wàññi dara itam seeni doom waaye kan mooy nattaleel jigéen ji ba ne ko yow mii sa wér-gi-yaram àttanul njur mu jege wala mu dem sax ba ne ko sa wér-gi-yaram àttanatul jur far loolu ko koy nattale ma ne mooy docteur mooy fajkat kon foofu na fi ragal yàlla ndax kat jamono yoo xamee ne nee na ko nee na ko sam njur mënatul a jege su boobaa day dagan ci moom mu jëfandikoo loo xam ne luñ ko tere woon la loolu mooy lan muy jëfandikoo lu koy tee ëmb moo xam loolu ban mooy bu mu mën a doon waaye loolu dañ ko xaraamaloon ci moom jox nga ko nag ci sa wàllu xam-xam loo xam ne nee nga ko ba say ëmb jegee mën nga cee faatoo wala say doom mën nañ cee juddoo faatu ndax sa wér-gi-yaram nangam ak nangam a ci nekk mu jëfe say wax ba soreelee am juram wala sax bu jaree limité ko ci kaw su demoon ba ne ko boo juratee faatu mën na caa juddoo mu dem ba mën caa limité am juróom bañ a jurati su fekkee la nga ko waxoon dëgg la day alhamdulilah kon dimbali nga ko ci wér gi yaramam jàppale nga ko waaye su fekkee la nga waxoon dara dañ na ci wala xeetu jalgatee nga ca boo xam ne lu dul dëgg nga ca su boobaa bàkkaar ba mu ciy jële bépp yow fajkat bi su boobaa yaa koy gàddu kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo wàllu planning te fekk doonul farata ci ñoom te fekk doonul ci moom ngir aar wér gi yaram ndax ñu jóg rek dañoo defee nag ku nef ku ne rek sañ naa daal di def planning tu mbir mi demewul noonu am na ñu mën a nef te du leen wàññi dara su ko defee ñu mel noonu docteur moo koy nattale ci seen wàllu wér-gi-yaram ñu xam loolu te nag docteur bi ak lu mu góor góorgóorloo xam-xamam comme ni ñépp di juume moom it mën naa juum mën naa jubloo def lu baax mën naa jubbante waaye njuum te dab ko ci biirub liggéeyam moo tax boroom xam-xame lislaam yi dëppoo nañ ne docteur bi su sart yi dajee ci moom ba noppi jalgati am ci liggéey maanaam juum na su boobaa benn responsabilité waru ko ca sart ya nag tudd nañ ko ba ci njëkk nee nañ mooy kooku na nekk ab docteur bu wér koo xam ne xam nañ ni kii médecin la bu jàng lii muy def daf ko jàng da koo xam itam jékkiwul jekki rek xëy xëy ne man ab docteur laa ñu ne konub docteur la waaye daf ko jàng ba xam ko ñu xam ne kii dafa jàng métier moomu doyul nag ñu ne siiw na ci wala ñu bari jaaroon nañ fa moom wér wala yu mel noonu faww day doon loo xam ne daf koo jàng daf koo xam nekk ci spécialiste charia door koo accepté ku ñëwoon ci jamonoy tey jii su fekkoon ne lislaam moo taxaw dàq faj ci àdduna ak li ci biiram ci wàllug lislaam bu fekkee ne yoruloo luy firndeel ne yow lii da nga ko jàng xam ko jaan ko jaar ko ci yoon ya ko nit ñuy jaar bu dee lislaam ay àtte moom ci tribunalam kooku kenn du ko accepté donte nit ñi seedeel nañ ko ni kii ab fajkat la kooku du ko faale faw ña fare métier moom a xam ko te bu dee ci jamono yi tey mooy université yi ak faculté yi nga xam ne ñoo jëm ci lu mel noonu faw ñoo koy bindal loo xam ne dañuy wane ni kii fajkat la ñu door a accepté ne kooku ab fajkat la boobu mooy ba ci jiitu beneen charte bi mooy njuumte loolu ko dal na fekk li tax mu gaar ko mooy da doon faj ba loolu fekk ko ca waaye nag su fekkoon ne da doon jalgati ba loolu fekk ko ca kon ba tey mooy responsable jalgati mooy lan suñ jàppoon ne jigéen a ngi joo yi dafa ëmb ne dafa bëgg a yàq ëmb bi walla yaasu billah ñëw ca docteur ba mu di ko jàppale ca loola ba far bakkanam des ca su boobaa dañuy jàpp ne docteur bi da doon jalgati maanaam fajul woon kon responsabilité bi ci kawam lay daanu si ñetteel ba mooy mu jëfandikoo xam-xam bi mu xam bañ a sukkandiku ci yeneen yoo xam ne yu nëbbu la léeg-léeg nga gis docteur yoo xam ne médecine lañ jàng xam ko mu doon seenub liggéey waaye di dund ci société boo xam ne mën nañoo waxee ne société xuraaf yi la maanaam lu lëndamut ci seeni bopp rek duñ ko nangu faaw ñu dugal ci ay xarga fuufa ak yëf ñu door ne lii dara la su docteur boobee bëggee jàng ànd ak mujtama bi maanaam ànd ak société bi ba lam jàngoon mu bëgg koo teg ca wet ga indi yeneen yu nëbbu di laaj ay cuuraay ak ay xob ak ay yëf yu mel noonu ngir bëgg nit ñi wóolu ko wala ngir bëgg a am ay client ba tax mu def loo xam ne yooye mu doon def te bokkul xam-xam ba mu doon jàng moo tax mu jalgati su boobaa responsabilité boobu tey day tege ci aw loosam moo tax faw bi mu jàngee ba àggal ba muy jëfit dafa jëf ci li mu jàng waaye jëfewut leneen ñeenteelu sàrt ya mooy responsabilité bu mag liggéey bu rëy boobu mu doon def su fekkee àgg na ci yenn liggéey yu garaaw yi day laaj ki feebar ci boppam joxe ndigal wala ay bokkam joxe ndigal ci loolu maanaam ku ñuy opéré ci misaal ku ñuy opéré faw moom ci boppam mooy wax ne d'accord na ci loolu wala ay mbokkam wax ne d'accord nañ ci loolu docteur bi doon koo def waaye agsi ni cëpp ci hôpital bi rek bala ñoo nooyi nga daal di koy tër daal di koy opéré su ci jalgati amee su boobaa l'islam nee na responsabilité bi dañ koy yenn dañ koy yan docteur bi kon mbokki jullit yi kenn ku ne xam na ne mbooleem ñi nga xam ne ñooy liggéey ci métier moomu mu yittewoo wér gi yaramu doomu aadama su fekkee ne nekkuñu kon ay fajkat kon mboolem yi ñu waxoon yépp ne day daggan yooyu bu dul fajkat boo xam ne sharia nangu na ne kii fajkat la mboolem yiñ ko mayoon ak ruxsa yi ca doon tegoog yombal yi nga xam ne yépp lislaam da koo indiloon nit ki ci kaw rapport docteur bi yooyu yépp day day neen su fekkee ne kooku du fajkat boo xam ne bu lislaam accepté la yooyu yépp day neen mocckat bi it ñi xam ne doonte mocckat la buy mocc ci lislaam sax maanaam day mocc ci alquran ak sunna ñu xam ne su fekkee ne góor guy mocc jigéen la wala jigéen juy mocc góor lañ mayoon ab docteur mayuñu ko ko ndax mocc doonut loo xam ne dafa laal bu dee diggante ñaar ñu bokkul maanaam kii di góor kee di jigéen jaaduwul laal di ca am wuññi awra waru caa am ndax ak ñaan la rek goo xam ne dangay ñaan borom bi tabaraka wa taala moo xam nu muy àggale ñaan nga ci borom moo tax docteur ba su fekkoon ne may nañ ko mu xool wala mu laal yow mi ñëw di mocc ci lislaam mayu ñu la di ca am wuññi awra waru caa am ndax ak ñaan la rek goo xam ne da ñaan borom bi tabaraka wa taala moo xam nu muy àggale ñaan ci borom moo tax docteur ba su fekkoon ne may nañ ko mu xool wala mu laal yow mi ñëw di mocc ci lislaam mayu ñu la nga xool loo wërta xool wala nga laal loo wërta laal kon loolu faaw ñu xam ne ko ci mbir moomu du dagan itam moo xam docteur bi la wala keneen muy wéet ka ca des maanaam bu dee jigéen ji muy wéet góor gi wala bu dee góor gi muy wéet jigéen ji ci béréb boo xam ne ñoom ñaar kese ñoo fa nekk te fekk li ñuy tudde maxaram mën naa am maanaam keneen mën na fa ñëw koo xam ne ku leen mën a ñetteel la te du yàq dara su boobaa loolu dafay war a am bu dee nag lu aju ci mbooloo yi ngay dégg ñu tudde seen bopp ay fajkat foo toll fu nekk dégg leen ñuy woote ci seen bopp dem ba àgg ci di publicité ci rajo yi di bind seen bopp ci journaux yi bis bu nekk ñuy dégg itam njaaxum yi nga xam ne mi ngi amee ci seenu wàll bu fekkee ne wàll gu mel noonu lañu doog fajkat yu mel noonu moom taxul sharia di wax ndax ñooñu su fekkoon ne sharia moo taxaw li ëpp ci ñoom su dul ñëpp sax dañ leen di noppiloo wala ñu sàkkal leen beneen pexe moo xam ne bokkut ak ni nga xam ne noonu la ñuy doxe tey su fekkoon ne nit ñi seen wér gi yaram am na ñu leen koy aaral ci seen kaaraange nam jaadoo kon lu baree bari ci ñoo xam ne ñu ngi taxaw tey di woote naan damay faj lii damay def nangam damay def nangam di joxe seeni i numéro téléphone ak seen i place yañ nekk su fekkoon ne dëgg moo taxaw tey ñu mel noonu dañ leen di noppiloo te xam ne ndax société bi lu bari ci ñoom moo leen tax a jóg ak itam yàq lu baree bari ci wér-gi-yarami nit ñi itam kon ñooñu moom taxul lislaam di wax kum mën a doon ñëpp nga xam ne docteur bu lislaam nanguwul ne kii docteur la su fekkee def na benn jalgati moo xam ci bakkanu doomu dama la aju wala ci alalam walla ci ak moomeelam bu boobaa moom mooy responsable bi mooy fay yitam su ca fay waree mooy fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ne xadis bu wér la mu ne man ta tababa ku docteur docteur lu kuy jéem faj kuy dem di jéem a faj wala yulamu minhu tibbun te fekk kookee kenn musta xam fu mu doone ab fajkat ci àdduna nee na fa huwa daamin nee na bu boobaa lépp lum yàq moo koy fay mooy responsable bu boobaa borom bi tabaraka wa taala mi ngi nuy soññi mbokki jullit yi di wax ne yéen nit ñi ragal leen yàlla seen boroom bi nga xam ne moo leen bind yéen ñépp ci benn bakkan benn bakkan boobee mu binde ca góor ak jigéen tasaare leen ba ngeen bare noonu yi ngeen bare ci kaw suuf ngeen fàttaliku seen borom fu ngeen toll ngeen ragal seen borom te xam ne moom moo leen di contrôler boppam maanaam lu ngeen def lu nekk wala ngeen wax ko loolu ñu ngi koy bind kon ñu fàttaliku ne responsabilité bu rëy boobu moo nekk ci kaw suuf ñu gàcc ko ci loo si ñépp képp koo xam ne kuy dox ci kaw suuf la kooku yi ñu doon waxtaane tey muy ab docteur mu doon kenn ci seen biir waaye kenn ku nekk la nga yore sa responsabilité rëy na ca bu soobee yàlla danañ topp lenn ci métier yi ci yeneeni xutba kenn ku nekk ñu fàttali ko lay responsabilité bi ñii ñoo aayati bu ëllëgee insha doon danañ romb ci ñeneen allahuma aqsim lana min xashyatika ma taxawlu bihi baynana wa bayna maasik wa min taatika ma tuballiguna bihi jannatak wa min alyaqini ma tuhawinu bihi alayna masaiba addunya allahuma matticna bi asmaacina wa absaarina wa quwaatina ma axyaytana wajcalhu alwaarisa minna wajcal saarana ala man zalamana wansurna ala man aadaana wala tajcal musibatana fi diinina wala tajcal addunya akbara hammina wala mablaga cilmina wala tusallit alayna bidunubina man la yaxaafuka fiina wala yarxamuna wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa aqimi salaa